wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 ndax talaata dañ ma dalaloon ci 2S TV ma toog fa xam leen ni ñeen fukk eh, juróom-ñetti fukki sëriñ ak ñeent yi ñu wax ni ñoo daje woon ca bureau ba ca Ndar wérut amut sëriñ Touba bi ñuy askanale numéro 4 wérut. maa ko wax nëbbuwuma laquwuma talaata ci guddi laa ko wax ci deux heures démb ci ajjuma ji fa ma toogoon am ku fa toog man seetaanuma ko waaye nit ñi ñoo may yónnee ay message yu bari ne ma yow képp la nga waxoon am na ku fa toog dindi ko nee na foofee juróom-ñetti fukki sëriñ rendi ma ni leen ah bon ñu ne ma waaw ñu yónnee ma bi ma euh, déglul ko sama bopp ba dégg la mu wax euh, moom nag tuddul sama tur dafa wax ni rek weddikat yiy wax yiy weddi 84 sëriñ yi dafa waroon ni weddikat bi weddi ndax gannaaw man dégguma keneen ku ko weddi man mii maa ko weddi et je persiste et signe 84 sëriñ yooyu ay lépp la amut sëriñ tu Ahmadou Ahmadou Bamba numéro 4 ay lépp la amut jamono yi passé gis nañ fi vidéo bu ñu doon wane naan sëñ bee jamono yi ñi daan théâtre loolu ñoo daan indi Ahmadou bàmba numéro 4 ak it ña jiitu woon ndax loolu ngeen di nettali maa leen mag te ba may gone laa ko daan dégg bureau ba jandaar dañ doon wax ni sëriñ sa dañ leen a dajale tëj leen fenn xiifal leen bañ leen a jox ñu lekk ñu jël bunt ba bënn ko teg fa garde mu di leen xool bu ñëwee laaj ko ba ñu amee ñetti fan ñu mu ni leen numéro 4 rek de moo jóg di julli waaye ñi ci des xiif jàpp na leen mënuñoo jóg ñu daal di dem wut ab këlbu rey ko jël deret ja pikir ko ci xarum tolaabeer togg ko ay ñam jël am soow def comme njar def ca galas sotti sàngara ci biir ña nga naan bañ ko indee ba ñuy séddale sëriñ bi moom bañ ko joxee palaatam laalu ko ba ñu noppee am na ñu ko doon wax naan ko lu tax ñuy xéewlu xéewlu la sëñ bi jël jëmm jii nag ndagam tuddul sama tur du ma tudd aw turam ndax yàgg naa ko dégg mu wax ay toj-toj wax na fi aw toj-toj ci euh, mbur dafa am ñooñ dañ leen di askanel ci gës bu ma waaye bu mu xaddimaat moom mooy diw yoonu géej gi may xam le ni moom munta doon diw yoonu géej gi ndax moo gën a umpule tukkib sëriñ bi ci géej gi xamu ci dara su fekkente ni conseil privé boobu moom la dem mokkal seeni tur di ko résité ni kuy élève bu ñooñee muy wax tàmbalee ko ci ka ko jiite woon doon Louis Guillaume Moutet né le 6 octobre 1857 à Marseille mënoon na noo wax kenn ku ci ne fa nga juddoo fa nga dëkk mais loolu taxunoo jóg li tax nag bokk yi interpellé ma may leeral lii moom dafa wax ni weddikat yi waaye weddikat weddikat bi man maa ko weddi amut wax na ca biir yi waxam ni 84 sëriñ yi boo demee ci archive yi ñu wan la ko moom xamul luy archive bu fekkee boo demee ci archive yi ñu wone ko na den génne ko won ko nit ñi mani leen moom mooy ki gën a umpule tukkib sëriñ bi yàgg naa koo dégg muy wax ay waxam musuma cee dugg ndax man suma ma nee juróom-ñetti fukki sëriñ ak ñeent dañu ñu woon booy wax saxalal neel daje woon nañ fa waaye nag weddikat yi du weddikat yi weddikat bii moo ko weddi ma di la xamal ni deex na waaye loolu nag wërta tax ñuy dajale ay baliverne li tubaab bi di wax ay xissa yoo xamante ni teguwul fenn di ko wax nit ñi ndax dafa am loo xamante ni bii dafa jaaduwut nan waxante dëgg gis nga ku bokkul ci yoon wi boo waxee ci yoon wi lu dul noonu ni may dale ci sa kaw yow mi ni ci yoon wi nga bokk boo waxee lu dul noonu noonu laay dale ci sa kaw weddi ko nan waxante dëgg dañoo dajale sëriñ sa ca ndar ñu lekk nan waxante dëgg ndar musuñu faa dajale ay sëriñ di leen jox yàpp xaj ak sàngara kon loolu laa bëgg a leeral dana toll jamono joo xamante ni lu waay di wax ñi ma invité dama ni leen gis naa ku bind ab leet euh, maanaam ku indi leetar bopp ni sëriñ Touba da doon tagg tubaab yi wax murid yi topp leen tubaab yi jox tubaab yi ay soldaar en 1910 ni leetar ba Bouyel Mokdar Seck moo ko traduit ci français démb ñu woo ma ndeke ñoom ña nga may topp di xool fu ma fakkastaloo ba ñu ne ma daanu nga am ñu ma woo ni ma waaw nun leen danoo dégg nga ni euh, Boyel Makhdar Seck lettre boobu ñuy wax 1910 ni moo ko traduire nga mille Boyel Makhdar Seck 1826 la feeñ 1880 la wàcc ab liggéey loolu jaaxal nu ndax nu ndar la dëkk Boyel Makhtar sekk nan lay euh, faatoo 1880 ba noppi doon interprété sëñ bi 1895 ma ni leen bu dee di may galgal nan ko nërmel dangeen di dellu jàngiwaat li ngeen di wax xamu leen ci dara Boyel Makhtar Seck 1880 1826 la feeñ 1880 la génn àdduna ba ñuy woo sëriñ ba bureau ba ca ndar fekk na mu génn àdduna ba am fukki at ak juróom ñu ne ma lu tax mu doon interprète da ngeen xamul dara doomam duut sekk boyel Mogdaad moo doon interprété sëñ bi waaye baayam boyel Mogdaad fekk na mu faatu ba am fukki at ak juróom ñu doon ah ne wax nga dëgg noo ngi jéggalu man leen du amul question jéggalu dem leen waat feneen fu ngeen ma bëgg a daaneel foofu du dox waaye jëmm ji mbokk mi tuddee boppam nangam yoonu géej gi déglu naa ko ba mu jeex benn par benn danaa ci tànn lu néew rekk pour wekki la muy wax xam ni la muy wax xamu ci dara yoonu géej gi mu tuddee boppam xamu ci dara dégg naa ko mu ni sëriñ bi Leclerc commandant Louga moo ko doon jël si ba mu koy jël si téeméeri tirailleurs sénégalais ak juróom fukk ak juróom fukk espace ñoom la jël kenn ku ne mu jox la téeméeri cartouche mu vingt mille ngir ñu ñëw song si mbakki Bari yow waroo nga di jëm ci tukki sëriñ bi ndax yaa ngi jël loo xamante ni juróom ñetti at gannaaw bureau ba ca ndar la xewoon li ngay wax ku dégg bi may leeral euh, euh, teesu rawaan mbay bi woon Victor Alice moo bind le gouverneur Merlin ñaan ko ndigal ni ko dama bëgg wut ab détachement ñu dem daarul Manaan këf Ahmadou Bamba ñu yóbbuwaat ko Gabon danaa ci boole ñooñ rabb yi ñu naan dal la ñu yor ndax bu ñu demee bu ñuy soqante ay sox ñu jël bakkanam ca Darul Manaan kon loolu nga dégg xamoo nu mu demee nga ñëw bëgg koo jox Leclerc Leclerc ba mu le premier août la bàyyi ko Ndar ba mu ñëwee Louga collègue yi nekkoon Dakar Gorée ak Thiès ñoo ko yónnee ay gardes régionaux mu réceptionné leen bàyyi leen ak buur njàmbur delluwaat ndar le 4 la dellu si leeral naa ko ba mu ñëwee ci la jàpp góor yàlla pël boobu ñu doon wax paate te mu nekkoon euh, ngaanaado te ñu ni leen dafa faatu woon ba am ñeenti fat dekki kon yow boo xamoon dara ci yoonu géej gi doo jël lu xewoon ca daarul ma naan di ko indi fi nga xamante ni bii mooy yoonu géej gi te seen diggante di juróom-ñetti at lu xew daaru ma naan nga delloo ko gannaaw ba indi ko Mbàkke Bari kon li ngay wax xamoo ci dara ma dégg nga ni ba ñu demee ci bureau ba ca Ndar juróom-ñetti fukki sëriñ la ñoon ak ñeent weddikat yi ñu ngi koy weddi waaye loolu moo am weddikat bii moo ko weddi te maa ngi dellusiwaat di ko weddi maa lay wax ni li nga wax amut nga ni ku dem ci archive yi da fa fekk demal génni ko ñu won ni ko ban archive la nekk Sëriñ Tuubaa le 5 septembre 1895 moom ak Dut Seck Boel Moktar mi di doomi Boel Moktar sekk ñoom ñoo nekkoon nit ñu ñuul ca bureau ba atte ba ñaari waxtu ak genn wàll la 9h ba 11 mbokk yi mbokk bi nee na salle de délibération bu gouvernance bam dar moo doon abattoir numéro da nga yàlla wala doo ko weddi nga ni weddi naa ko ñu tër la ren di ci bureau gouverneur numéro deux di nga weddi wala doo weddi nga nga ni nga ni ñu tër la ren di nee na sëñ Tuubaa numéro la woon moom moo ji ñëw en quatrième position moo tax sëñ Tuubaa di numéro quatre ma ni wérut sëriñ Tuubaa li ma gis ci archive yi gisoo ko li ma yor ci document yoroo ko sëriñ Tuubaa fenn lañ ko mas a numéroté te loolu bi mu nekkee njaarim la en 1916 Domergue mi nga xamante ni moom mooy président France bi dégagé woon presque vingt cinq millions ngir ñu jëlee raay bi njaareem ba indi ko Touba jamono jooju moo doon le ministre des colonies moom moo dem wax ak député yi ngir créer conseil consultatif ñu tànn ñaar fukki nit ay kilifa ngir ñu con ko di saytu l'islam yi aweef foofee boo demee dañoo tàmbali diw un ba diw vingt Serigne Touba boo demee numéro huit la fay nekk foofu la ñu mas a bind sëñ bi di ko numéroté soo demee El Hadji moo fay nekk numéro sept sëriñ bi moo fay nekk numéro huit war nu këyit wala ak ku man di doon je défie quiconque mu indil ma fu ñu bindee ni bureau ba ca Ndar dañ doon numéro te sëñ bi moo doon numéro 4 c'est faux amut maa ko wax amut ñu laaj la ñett yi ñu tër reen ñu mu doon nga daw res ni doo wax seeni i tur ndax fa ngeen doon làqatu sëriñ Ndaam Balla Cokket loolu la ñuy wax Ahmadou Aminata Yàlla ak sëriñ Màkka Birama Xaali ndax dégg ngeen sëñ Moussa Kanaan ay na sëriñ Màkka Birama Xaali ñoo ko ni cas te moo rawoon kuy xaali surtout Maxtaar Numbe ba sañ doon kokki Ahmadou Aminata ñoo ko sànki nda am balla coket waa kër ahmadou cheikhou ñoo ko faat te boobu ahmadou cheikhou ngi fi ahmadou cheikhou mi ngi daanu fukki fan benn ci weeru février atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom le 11 février ci la ñu xeex xeexu Samba Sadio ca la daanoo xeex nañu Samba Sadio ba teg ca ñaar fukki at bureau ba ca ndar doog am waaw kon sëñ Balla Coket Lo bi nga xamante ni faatu na lu jiitu xareb Samba Sadio ñu xare Samba Sadio ñu teg ci ñaar fukki at ñu doog sëriñ bi ci biro ba ca Ndar nan la fay nekkee bañ koy rendi wala ñu di ko jox gaynde surtout Maxtaar Ndumbe ma sañcoon kokki sëriñ Ahmadou Aminata yala Diop soo demee ci journal bi ñuy wax moniteur du Sénégal moom ak maami Cheikh Moustapha al Karim sëñ Maxtar Lo journal ba ña ngay wax ni ndax sëñ Maxtar bi ndate bi sidee ndate yàlla ak yaayam làqutoo si euh, ñoom rek te fedeet wax sëñ ñoom génne leen mu gàntal ca la ñu doon song si ñoom Ñomre la bataille de Ñomre c'était au mois de mars 1858 Faidherbe bu ni lii lépp Maxtaar Binte moo nu ko yóbbee moo tax ba yëfee jàllee ñu jàpp sëriñ Maxtaar Binte mi waajur soxna Aminata Lo moom ak Ahmadou Aminata Yàlla ñu tëj leen fii ci gore fa la ñu leen jëlee dugal leen ci bato sànki leen dégg ngeen géwél yi wax naan sëñ Maxt euh, euh, euh, sëñ Maxtaar Binte ma ca mbeex ma koo xamante ni 1864 la ñu la sànki nooy mën a teewe ci bureau ba ca ndar en 1895 loolu kon wax ju yàqu la li ma lay wax dama lay indil ay argument yu leer demal indi say argument wala ñu dalal nu maag yow ñu ñu nga défendre li ngay défendre ma défendre li may défendre nga jóge fa ni sëñ Moussa Ka mooy sama professeur li may wax yaay ki gën a umpale sëñ Moussa Ka te bala may ñëw sëñ Moussa ndaw si la doon dalal nee na la bato bi doon yóbbu sëñ bi bato anglais la ma di la xamal ni bu fekkoon xam nga dara ci tukkib sëriñ bi wala nga xam dara ci sëñ Moussa Ka mi nga ni sa professeur kon di nga ko tontu la ville de Port Nambour bato France la woon soo demee ci gësaawu sakkoor bi ngay wax sëñ Moussa Ka nga naan waaxu Moussa Siri la tabbee mbeex ma keroog la motti mottili asiru neex ma waxu Moussa Siri ku la doo ko xamoo ko sëñ Moussa ba ma koy topp bu bu fekkee feeñ ngeen gone nga 1967 màggalug Daaru Muuti di jub si maa dem yéeg ci guy yi di witti buy ba am sama guy bu bari dem jaay ko màggalug Daaru Muuti 1967 ba ma demee fekk nañu tàmbali yi Daaru Muuti ba ca déwén sa ferrailleur ya fa ñu nekkoon di dagg weñ ya am na jaaykatub téere bu fa nekkoon ak jaaykatub xeeri Touba 1967 laa dem wecceeku boroomam mooy xasida ak sëñ Moussa gi ma njëkk a am la desoon ca wecce doo ma daal di dem ba xam naa gars yi sant loolu wax dara waaye booba xeeri Touba xeer wa sex rek boo ne cell rek mu daal di seey la desoon ci wecce doo xeeri Touba laa ko jënde kon ba may topp sëñ Moussa Ka toppoo waxu Moussa Siri la la tàbbee mbeex ma lu tax sëñ Moussa ko wax ko ndax compagnie bi ñu doon wax messagerie maritime de Marseille ñoo moomoon bateau bi yóbbu sëñ bi muy la ville de Pernambouc nga xamante ni en 1907 la ñu ko mujj géej bato boobu ñi ngi ko defaroon ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar 1882 la ñu defar bateau bi yóbbuwoon sëñ Touba Gabon tuddee ko dëkk bu nekk ci Brésil muy la ville de Pernambouc kon su fekkoon xam nga ci dara bi ndaw si ne batab anglais la doo ca ànd kon nga ni ko déedéet leeral ko lii ma la wax nga dellu wax ni sëñ Moussa Ka mooy sa professeur ba noppi ni Serigne Touba am na fanweeri fan ak ñaar ndar nga ni fukki fan ak ñett la ñëw ndar déedéet altine fukki fan ñaar ci weeru septembre la sëñ bi ñëw ndar gaawul fukki fan la génn dimanche fukki fan ak benn mu xëy ginnaaw ba mu fanaanee jeewal dem kokki altine fukki fan ak ñaar la jógee kokki jaal belal jóob ñëw ndar ñu dugal ko saxaar mu dem mu ñëw Louga ñu dugal ko saxaar mu dem ndar kon boo nee le treize la sëñ bi ñëw li ngay wax xamoo ci dara waaye erreur bi gën tee mag nga ni sëriñ bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sattunbar la bàyyi ko ndar dem Ndakaaru loolu nga wax wérut sëriñ bi alxemes fukki fan ak juróom-ñeent lañ ko dugal gaal jéer yi mu jëm ndakaaru bambara mu jiri loolu sëñ Moussa Ka wax mi nga ni mooy sa professeur ba mu ñëwee guddi googa ma ngi ko fanaan ci néeg bu doy waar boobu nekkoon ndakaaru ca suba sa ci ajjuma sëriñ Tuubaa ci boppam moo bind di le ni guddi ga ma ko fanaan ca biir bato boobu di ville de Pernambouc ba mu xëyee gaaw fu di ñaar fukk fan benn ci la gaal ga déqi ci la julli ci géej gi diggante Dakar ak Conakry nit ki bu fekkee dafay wax te li muy xamu ci dara seetlu ko day wax di di boppam ndax yow yaa ni sëñ Moussa mooy sa professeur danga am bayitu sëñ Moussa woo xamante ni bii ñàkk maîtriser sëñ Moussa Ka moo tax waaye boo ko maîtriser woon doo ko wax ndax boo ko waxee yaa ngi daaneel sa bopp ndax yaa ni sëñ bi le 18 septembre la jóge ndar gars yi dem leen ci nattuwaay ngeen xool le 18 ban bis la woon su ngeen demee àllarba lay doon mercredi le 18 septembre lay doon suba sa ca suba sa le 19 mooy alxemes sëñ bi deful ñetti guddi ndakaaru ñaari guddi la fa def te yow bu fekkente ni nee nga le 18 la fa def def na fa le 18 le 19 le 20 muy ñetti guddi mu doog faa jóge wan bayitu sëñ Moussa Ka yow yaa waxal sa bopp ni sëñ Moussa Ka nee daal di koy jalax mu jëm ndakaaru ca alxemes ja noonu ya dollee waaru yow yaa ni al àllarba la fa jóge ba noppi ni sëñ Moussa Ka nee na alxemes kon li ngay wax maîtriser woo maîtriser woo sëñ Moussa li ngay wax xamoo ci dara ñu dal di koy jalax mu jëm ndakaaru ca alxemes ja noon noonu ya lay waaru tubaab yi bind nañu ni alxemes la sëñ bi jóge ndar sëriñ bi bind ko sëñ Moussa Ka bind ko yow nga ñëw ni àllarba la ba noppi nii sëñ musaaka mooy sa professeur mbokk mi ji créé di wax ci sëñ bi ñu lay joxub xaalis neex na lool waaye di wax lu wér ci sëñ bi da koo gën da koo gën a wóor man nag jóguma pour polémiquer wala may tontu maa ngi dégg li ngay wax muy toj toj yi kese dégg naa nga naan sëñ bi fu mu teg tànkam Gabon ba may dem Gabon demoo Gabon télé boobu nga nekk laaj ma Mbacke Mbodj documentaire bi ma def de Mbacke Bari à Lambaréné sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba li may wax foraatu wuma ko ñii ñu fi wax ay docteur dañoo jàng di jàng ba am doctorat moo tax ñu leen wax docteur ñi agrégé dañoo jàng di jàng ba am agrégation mboor du ma wax ni agrégé naa ci du ma wax ni professeur laa ci waaye def naa ci ñeent fukki at ak ñaar di ko di xañtu mboor kon nag munoo ñëw barki démboo waxal say wax waxal lu la neex doo ko wax mukk ba ma song la waaye nag boo ñëwee bëgg a teggi li ma wax ni bëgg maa taxé de weddikat ma ni nanu bàyyi sos yi ñuy sosal Sëriñ Tuubaa mel ni sëriñ bi dafa matut ba ñu bëgg koo mottali mel ni sëriñ bi dafa suufee ba ñu bëgg koo yëkkati tax ñuy créer di wax yoo xamante ni bii di xas sëriñu jàmbur koo xasub sëriñam mu xasab sëriñ bu ñu nu fontoo 84 sëriñ mosuñoo daje ndar sëriñ Tuubaa mos sa nekk numéro 4 je défie quiconque ku ci am say cëslaay télé yaa ngi fii ñëwal maag yow ñu dalal nu ñu jàkkaarloo li may wax fu wóor laa ko teg kon mbokk mi man maay diw tukkib géej gi ndax pepp da cay génn sëñ Tuubaa mooy xorom togg goo ko defut du saf waaye sëñ bi li ñu mën a wax ci moom dafa bari ak lu mu di muy muy lu néew lu bari na doon dëgg ndax dëgg ay mucc lii daal laa ni ma dinaa ko indi leeral ko ndax dama jot message yu baree baree bari ñu ne ma yow li nga waxoon loolu moo tax ma ñëw di leeral waaye xuloowuma polémique wu ma ndax jëmm ji ko doon wax yàgg na maa dégg maag ñu bari muy wax waaye musuma tontu ay waxam ma dugg ci waaye nag ba mu ma bëggee taxé di weddikat moo tax ma ni lii dinaa ñëw ngir leeral ko maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi àndoon ak nun di leen xamal ni nag direct yi bii moo ci mujjoon ndax suba màggal la li ma yor ci ay plateau lu ma war a def tax na ba suba du ma mën a def direct incha allah ci dimanche ji altine màggal la talaata màggal la maa ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen doon ànd ak noonu di ñaan ci daraje yi Serigne Touba ak màggal gi yàlla na nu yàgg fekkee safar yu baree baree bari safar gi yàlla bu mu doon sunu màggal gu mujj ci daraje sëriñ Serigne Touba ak daraje yi yoonu safar ak daraje sunu bunt ci sëriñ Touba di boroom Darou Mouhty kon maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di dellu di ziar Serigne Alpha ci jëfam jooju. waaye sëriñ Mouhamadou Diagne gis bu nekk ca Libreville maa ngi lay yóbbante ab euh, nuyo ak ab euh, ziyaara ci bokki taalibe yi nekk ci réew moomu nga xamante ni bii tubaab yi dañu ne woon dañ fi indi sëriñ bi ngir sànk ko ndekete defuñu erreur bu ko gën a mag kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ñëpp waaye nag kenn ku nekk nekkal ci sa biir xottu gerte waaye nag wax ci sëñ bi kenn du ko tere kenn lu mu neex itam lu neex waaye itam nga wax ko ci waaye am maa ma wax samay wax nga toog foo ma toogoon ni ab weddikat la loolu moom moom laa du nungu la ma waxoon tey laa ko gën a wax mooy lan juróom ñett fukki sëriñ ak ñeent kenn mosu leen a dajale ndar tubaab yi binduñu ko ku la ko wax du ko génne numéro sëñ Tuubaa moo doon numéro quatre itam lii ma la wax mbind la tubaab yee ko bind numéro huit la woon te loolu jamono ji mu nekkee njaareem la woon sëñ Tuubaa musta doon numéro quatre ca Ndar maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu